da ngeen distance nañu organiser rek waaw kii baax na kii baax na remise la ñuy def instant yi remise la instant yi léegi yow mën na bàyyi da ngeen di arrière gaa yi arrière waay gaa yi reculé waay respecté leen affaire yi respecté leen affaire yi ça va léegi gërëm bu baax. gars yi déglu yéen ñi ci ginnaaw di commentaire. les champions yi xamante ne tey ñëw nañ seet suñu pour euh, joxe seen contribution si xeex bi xamante ne xeex bu am solo la ñu koy xeex Covid 19. monsieur le président maa ngi lay remercier bu baax. si sa tour may remercier tous les champions. ànd ngeen seen ak mag Yaxya Diop Yekini hmm. ànd ak le roi des arènes Modou ku lim jum champion yëpp ñëw nañ tey mais xam ngeen ne li ngeen def tey Sénégal danañ ko yëg bu baax a baax a baax parce que ku leen génn Sénégal li si des du si bëri wan gars yi maa ngi leen di remercier au nom du président de la République son excellence le président Macky Sall di rafetlu ki ngeen àndal muy monsieur le ministre Matar Ba mënoon na leen wax dem leen ma woo ministre bi rek ngeen fekk ko fa mais dafa ànd ak yéen ba fii loolu dafa comprendre mission mais ku ko xam-xam ne noonu la mel monsieur le ministre maa ngi lay remercier bu baax euh, may leen di dénk nag loo xamante ne bu ngeen ma ko mënee defal de dana baax mooy ku nekk si yéen champion nga am na ñu nekk sa gannaaw nga jël kaddu waxak effectivement ñi xamante ne ñoom ñoo lay supporter pour que mesure yi ñu leen di dénk ñu respecté loolu moom moom la ñuy wax ay capsule su ko defee man ngoon bu jot rek danaa génn kenn si yéen mu wax ak sénégalais loolu bëgg naa ngeen defal ma ko parce que xam naa lan ngeen di tekk si réew mi maa ngi leen bu baax. monsieur le ministre ngi sant ñëpp di sant euh, Gris ak l' ensemble des lutteurs. ak le champion na Yaxya Diop Yékini Bécaye mbay di sant waa làmb ji yëpp fierté la honneur la aussi ma ànd ak ñoom ci sama xarit da Macky Sall moo ko jiite mu ànd ceeg moom jiite sant yàlla may ko ndam may ko ndam moom mooy ñu fexe ba coronavirus covid 19 jeex ci àdduna bi jeex ci senegal rafet nañ ci njort parce que mu ngi ciy liggéey di ci def lu am solo te loolu Sénégal yëpp ñoom ñoo ko d'accord donc monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu di am mbégte aussi daje ak yow ci condition yi ñuy dalale wane na ne suñu xarit nga mais ku bëgg réew mi nga bu ñu gërëmee nag le personnel de santé dañuy gërëm les lutteurs du Sénégal ci taxawaay bi ñu am di ma conforter toujours ci jàpp bi ma jàpp ne làmb Sénégal mënul dox te làmb amul d'abord parce que activité bu nit ñu bëgg la mais ay kilifa ñoo nekk ci làmb tey wane nañu ko xam nañ ne làmb amatul seen gagne-pain la waaye terewul loolu dajal nañ li ñu am au-delà de la sensibilisation te ministre ñaanaat leen ko léegi pour que ñu def ay capsules yu bari continuer waxtaan ak nit ñi parce que ku nekk am nga mbër ci réew mi am na koy supporter su ñu waxee ñoom ñëpp rek defe naa ne sensibilisation bi dina dugg ci bopp ñëpp mais bu ñu dajalee seen alal tey andi ko muy matériel bu am solo bi ci suñu gannaaw loolu man mi ñuy woowee ministre de la lutte damay gën a am mbégte parce que wane nañ ne patriotisme ku koy wër boo ñëwee ci biir làmb di ko fekk ñii ñëpp ku mu neexoon nga dem toog di seetaan waaye képp ku bëgg sa réew lu mel nii bu amee di nga poser sa bopp question ne lan laa war a def pour bokk ci lii nga xamante ne xeex la bu war a gañe képp ku yàlla jox kattan ci réew mi ci kàddu walla alal da nga cee war a dugal sa sa loxo ñoom nag yàlla may na leen kàddu yàlla def na nit ñi sopp leen mais yàlla it dénk na leen teraanga boo xamante teraanga bu lew la parce que da nga koo ñaq am ko kon seen teewaay fii ma gunge leen comme ni ko ministre waxee mënoon nañ ñëwal seen bopp parce que ça ça n'a rien à avec les activités sportives waaye jàpp nañu ne une famille restera toujours une famille ñoom ñooy acteur de la lutte moo tax bi ñu ma nee nañu ñëw fekke lii nga xam ne moom la ñuy def jaarale ko ci ministre Diouf Sarr ministre de la santé et de l'action sociale accompagné ko le président de la République pour protéger les Sénégalais ma am cawarte ñëw ànd ceeg ñoom te loolu firnde na boo gisee ñi fi taxaw yëpp nga xam ne ay kilifa ñoo fi taxaw ci wàll wi ñu nekk mais ay kilifa lañ ci réew mi kon damay ñaan rek Gris ngeen gën a góorgóorlu ni ko ministre waxee ci sensibilisation bi di gëm nag ne acte bi ngeen posé yàlla na doon liy jeexal coronavirus ci réew mi maa ngi leen di sant leen gërëm was waaw di sant rek di sant trop wax dëgg yàlla am mbégte parce que tamit jiite yombul waaw parce que imam ba ñuy jiital sax gënul xam-xam ëppul xam-xam ñëpp dañ ko doyloo rek jiital ko te nag wax dëgg yàlla mbir mi ma bokk ma bokk ma bokk ko ak samay nawle parce que tamit jiite say nawle jiite say morom say say adver ñoo xam ne ay adversaire ngeen yombul man kon mbégte bi mu ci am mooy wax dëgg yàlla bi ma jëlee sama téléphone woo ku ci nekk ñu gisee ñi teew ñëpp ñëpp Boy Niang Modou Lo Tapha Tine Reug Reug Yaxya suñu suñu mag wax dëgg yàlla yombul ba jëlee suma téléphone woo ku nekk waxtaanee ko ci néeg ba ñoŋal ko ba mu yegg si fii yombul woon waaye lii rek laa ci bëggoon ah pour tey ñun mbër on est des vrais patriotes social kenn taxuñu ko Sénégal bi coronavirus bi mbër ji gën a métti la parce que mbër mbër rek mooy dem ñaani pour jox jox ay nit waaye lii dafa nekk quelque chose boo xam ne dafa c'est symbolique lii dafa mënul ñàkk parce que nag ñu nekk Sénégal façon takkusaan bu ne bu ñu amee combat dëkk bi na tek doo dégg dara kon boog lii askan wi la jëm am ci contentement si suñu ñaari ministre yi seen teewaay bi ñu ñëwee sànq di jël ay parole ci kaw di waxtaan ci kaw ñu ne le ministre Diouf Sarr dafa nar a absenté ñu ñëpp suñu yaram yi dafa xaw a dee parce que parce que li tax <coughs> fooy dañ koy seen ci télé bi soo ko gisoon xam ni kilo yi wàcc na ndax sonn parce que nag xam nañ ko bien avant coronavirus bi di dugg Sénégal du nelaw guddi am yërmande ci moom lool en tant que patriote patriote gis ko ni mu sonnee nga xam ne ñu ñëpp ñoo dañoo war a jàpp ci xeex bi àndal nag suñu ministre du sport tey mu magal ñu tey bu ko neexoon na ma nga fële toog waaye dafa xam ni làmba aye te ay tey mbër ñooy indi mu ñëw jëmmal teewaayam am lu mu def ci bis bi te mbir mi combat te tamit mu ñëw taxaw fi suñu papa Bekaay Mbaye biñ ko woowee dafa ne asalaamaaleykum ngeen xam ne tey làmb moo fi nekk façon sportive bu nekk ñëw na fi waaye tey li fi ñëw ci presse tey mi fi saw ñëw kon saw veut dire que tey dafay wane ni mbër yi waroon nañ war nañ gën a xamaat suñu bopp xam ñun lan la ñuy tekk ci dëkk bi xam ban impact lañ fi am ci pour pour bu bu yu mel ni amati amatee buñ ci xaar kenn xam ne làmb moo ciy gañe encore une fois kontaan nañ trop di ñaan yàlla feebar bii nga xam ne balaa la yàlla na ko fi yàlla jëlee parce que sonal na àddina bi trop parce que tamit ak ñu ngi dugg ci koor gi koor gee ngi ñëw hmm. te ku gis xam ne xiif xiif du jàmm kon boog yàlla na ko fi yàlla jëlee ci barke Cheikhou Tidiane di kontaan ñëpp di gërëm ñëpp di ànd ak di kontaan trop ci sama mbokku mbër yi nga xam ne wax dëgg yàlla ak sama mag Yaxya Jóob Yékini deux jours man ak moom ñi ngi ànd dugg ci dëkk bi pour rek li ñoŋ jërë ngeen jëf